rawatina actualité yi euh, rawatina actualité tay bi nga xam ne mbokk yu baree bari yuñ bokkal daara ji génn nañ euh, def ay sorti joxe ci seen xalaat ginnaaw bi nga xamante ne Cheikh Moustapha si Al Maktoum euh, génn na ci ci gàmmu gi ni mu ko baaxoo defee at mu jot ndax sëñ Moustapha génn yu am solo lay génn di waxtaan ak mbokki julli di saa su nekk waaye léeg-léeg diine dafa am yu baree bari yu nekk yoo xamante ne dañ koy dañ koy waxtaane Eh, moo tax bu mbir ñëwee te tegu dafa am ñu ci war a wax ak ñu ci wërta wax am ñoo xam ne buñ ci waree wax it seeni wax li ci ëpp ay laaj la war a doon. Mm-hmm. am ñoo xam ne itam dañoo war a dem gëstu ji bala ñoo weddi menn mbir. Mm-hmm. bu dee am nañ eh, données yi nga xam ne yëpp moom la ñu war a gëstu jee bu fekkee mbir mi bokkut ak lañ xamoon. su fekkee bokkut ak li ñu xamoon nag ñu xool ba xam masala mi ñëw ban impact lay def ci ñoom ndax lii dafay laal seenu jaamu yàlla. ndax dafay laal seen pas-pas ndax dafa am lum leen di yàqal ci seen jaamu yàlla wala déet defe naa laaj yooyu yëpp kenn ku nekk war na koo laaj door a ñëw ci jéem cee jéem cee joxe benn benn benn àtte ànd ak loolu yëpp nag bu ñu rafetloo waxtaan wi nga ne sëñ Moustapha def na ko fa ak ya jiitu ndax dañ koy xoolee way juróom sëriñ Seex eh, ci taxawaay bi nga xam ne moom la amoon ci bisu gàmm am ko ci diine ji waaye doon ab modèle ci képp koo xam ne doomu daara nga sëñ Seex modèle la ci yow ci modelu jàng li nga war a jàng ci daara ji waaye dégg sam réew Euh, ba nga xamante ne sa parti maanaam maanaam sa contribution ci développement réew mi kenn ëppale ko ci léegi nag euh, euh, laaj bi nga laaj léegi mooy ndax ab yonent dina mooy wala déet loolu dañ koy delloo si ci ñun lan lañ tudde mooy xam nga jamono ju nekk dafa am lu fa tudd mooy mhm. am jamono joo xam ne am na jamono joo xam ne loolu tuddul woon mooy li ñu tudde mooy yàlla ñun loolu kañ la tudd mooy yàlla mhm. li nga xamante ne moom lañ tudde tey lu araam ma waxee ko noonu ba bañ tudd mooy yàlla waaye li nga xam ne moom lañ tudde lu araam kañ la araam xam nga yonent yàlla aadama rek bi mu fi nekkee maam aadama ay doomam yu bokk ndey ak baay ñoo doon sëy ci seen biir mhm. te pourtant loolu dafa araam jamono ji ñuy wax mhm. waaye ba fi aadama nekkee dong moo xawaa ak i doomam mhm. euh, maanaam seex bi juddu 2015 bu góor bi mooy takk seex bi juddu 2017 euh, seex bi juddu 2017 tey jigéen mooy sëy seex bu jigéen ba ba juddu woon 2015 te ñoo bokkoon benn biir boo xam ne ci lañ génne waaye jamono jooju loolu moo mënoon a nekk moo tax loola araamul Eh, xam nga kan moo mooy jamono jooju mooy doomi aadama ja nga xam ne benn doomu aadama xaabil mi wax baayam ne ko ni eh, tëral bi nga tëral du ma ko tëral parce que sama ki nga ma bëgg a may dafa ñaaw sama seex bi ma bokkal benn biir ñu bokk judd 2015 moom laay takk ndax kooku moo rafet ci alxuraan kooku la ñuy tudde ku mooy kooku mooy ki nga xamante ne moo def lu araam ndax moom ci mu bokkal benn biir juddu la bëgg a takk te li baayam tëral muy sariya am di sariya aadama mooy ñaari ñu bokk benn biir waruñoo sëy kon mbir mu nekk buñ nee araam na wala dagan na dañuy laaj kañ la araam ak mbir mi kañ la dagan mhm. xam nga kon loolu moo doon am ñuy dem ba mu yàgg nit bari ci kaw suuf kon comme nit bari na ci kaw suuf soxlaatut nit di sëy ku mu bokkal eh, ndey ak baay wala ku mu bokkal benn biir bu mu juddoo ñuy dem di dem di dem di dem demoon nañ ba jamono nit di boole ñaar ñu bokk ndey ak baay takk leen te loolu araamu doon alxuraan day wax ne wa an tajmau bayna al uxtayni illa ma xat salaf yàllaa ngi tere ku boole ñaari sœur def leen jabar lu dut la jiitu woon maanaam la jiitu woon kon ça veut dire que baal na leen ko mm-hmm. léegi nag araam na désormais araam na nga xam ne day dem ba mu yàgg benn loi ñëw araamal dara ci diine mm-hmm. dem ba mu yàgg euh, lu ko jiitu araamul woon mm-hmm. bi yonent yàlla Muhammad ñëwee sallallahu alayhi wa sallam suñ borom jox ko diine ji nga xam ne mooy diine lislaam mu ñëw war a tëj li nga xamante ne mooy ak nubuwa tëj li nga xam ne itam mooy risaala ci kaw suuf indi mission bi nga xamante ne moo mat bi mu ko jàngalee ba mu mat mu ne beneen euh, euh, beneen diine wala yeneen i loi yu ñëw di araamal li mu li mu daganaloon wala mu ñëw di daganal li mu araamaloon loolu dootu amati léegi al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nihmati wa raditu lakum al islaama diina nga xam ne léegi kon lépp mat na loolu mooy laaj bu njëkk bi tontu bu njëkk bi mooy kon bu ñëwee mbir dafa araam dañ naan kañ kañ la araam ka ko doon def ci ban jamono la ko doon def xam nga tey boo ñëwee tey suñu luwaay réew mi euh, ki nga xamante ne dafa dañ ko accusé woon viol avant ñu koy criminaliser bokkut ak ki nga xamante ne dañ ko koo accuser bi ko criminaliser euh, maanaam siis bi tey bu tiimee yëf yi ki bi ñu ko criminaliser bokkut ak ba ñu ko criminaliser gut ni mu ko ni mu ko tiimee dañ ko dafa violé woon waaye trois ans lañ ko tëj bàyyi ko loolu du yoon mm. te ku violé dañ a tëj dix ans wala wala quinze wala jëm la ko def mm. nga ne ba mu koy def loolu loi boobu ñëwagul woon kon loolu engagé wu la defe naa misaal mi leer na mm-hmm. léegi nag ab yonent ndax dana mooy wala déet kon loolu leeral na wax ji mooy li ñu tudde mooy ñun lan la mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala alquran daf ñuy wax ne daawuda euh, anna fatannaahu fastaxfara rabbahu wa xarra raakian wa anaaba léegi fastaxfara rabbahu daawuda mel ni ku naan def na bàkkaar yàlla ne ko jéggulu ma mu jéggulu ko laaj day juddu foofu ci yan bàkkaar la def bàkkaar boobu lan la léegi boo taxawee ci loolu ci lañuy posé question kon ndax ab yonent day mooy ba ñu ko naan jéggulul wala ndax day wala yàlla bu waxee ab yonent ne ko jéggulul jéggulu gi leneen lay tekki comme ndax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñ borom nee na ko na nga jéggulu wastaghfir li zanbik na nga jéggulu sa bàkkaar yi ba noppi wax ko ci alquran ne ko maala la baal say bàkkaar ba noppi ne ko jéggulul say bàkkaar yonent bi ne bis bu danaa jéggulu lu mat juróom-ñaar fukki yoon beneen riwaaye mu ne danaa jéggulu lu mat téeméeri yoon kon léegi li muy jéggulu yëg-yéegi boppam la yum jàpp ne moom àq yi dox digganteem ak boroomam ak li ko boroomam defal ci teraanga war naa gën a góorlu muy jéggulu ngir góor góorlu di jéggulu ngir jàngal ñu ne gannaaw man maay jéggulu yéen da ngeen war a jéggulu seen borom subhaanahu wa taala loolu taxawaayu yonent la léegi nag li sëñ Moustapha wax sëñ Moustapha njëkku koo wax sëñ Moustapha jiituwut ci wax ji moo tax euh, des fois dal ci kaw sëñ Moustapha xam nga ñun léegi dañoo ne ci jamonoy réseaux sociaux ba nga xam ne kenn ku ne day jonguru dafa am ñoo xamante ne dañoo taxaw rek jonguru nit maanaam jonguru aw nit bu yaa Moussa di def émission bu defee waaw di gu góolu mooy jongur waaw kon merci beaucoup bu yaa Moussa di def parce que ñun génération boobu lañ gën man damaa kaw kaw <laughs> xam nga moom kaw kaw la rek <laughs> kaw kaw moom lu mu yàgg-yàgg ci taax yi kaw kaw lay doon moo tax baat bu ma wax mu jafe rek kon nga jégal ko mu <laughs> kaw kaw moom kaw kaw la rek am na solo am na solo voilà euh, tey bu yaa Moussa waxoon euh, bu yaa Moussa doon def émission tey mm-hmm. ba wax benn baat boo xamante ni jàpp nañ ne baat bi du noonu mm-hmm. bu njëkkoon nit ñi dañuy toog di ko werante léegi nag dañoo am réseaux sociaux kenn ku hmm. nekk day am fu mu mën a génne ca sa daal ni tell waaye nag yëf fi def ci teey tuuti baax na ci hmm. xam nga tey bu dee nit daa wax loo xam ne moom njëkku koo wax hmm. te li mu wax am na téere yu ko wax débat xam-xam la war a doon débat xam-xam ay boroomi xam-xam ñoo koy séq ñoo xamante ne dañuy respectante léegi laaj bu njëkk bi mooy daawuda loolu yi sëñ Moustapha wax ne doon na wax Souleymane ne ko sama alal gi yëpp yaa ngi koy jël di ko jox sa coro yi baatu coro ñun lan la taxawee ci ñun léegi Souleymane bu fekkee dafa yoroon ay jabar yu bare baree baree baree baree baree bari ndax sariya am maye woon na jabar yu bari yooyu wala déet su fekkee ay jaam la yu mu àndal ndax loolu sariya maye woon na ko wala déet ndax sariya Souleymane ak Daawuda maye woon na ko wala déet loolu dañ koy xool yaa Moussa mais du lu lu nit di jékki-jékki rek daal di tël daan ne dafa ñaaw njott ci yonent bi ku toll ne Souleymane nga di ko tiimal ay coro ñun ñoo am problème mu coro léegi parce que ñun suñu diinee tënk nañu ci ñeenti jabar ba noppi araamalal ñu jaxasoo yenn jaxasoo yi mais est-ce que est que est-ce bi ñu nekk ñun mooy context boobu wala déet est-ce que loolu moo walaabul wala déet léegi nag am na ci diine lu ñuy wax israiliyaat israiliyaat ay nettali la yoo xam ne dañuy wax ne ñiñ bokkalu diine ñu ko nettali voilà foofu laa bëggoon ñëw day naan am na si ay téere yu mu nekk. mais ay téere noonu l'islam. voilà non pas sax léeg-léeg sax ñu tuddee ko noonu. l'islam wala yoo xam te islam rek. voilà voilà loolu rek la léeg-léeg mu doon ay téere yoo xam ne dafa nekk ci téere yahuud yi. Mhm. mu nekk ci téere nasaraan mhm. yi nga xam ne dafa jiitu woon l'islam. Mhm. ñoom nag bari loo xam ne nettali nañ ko. israéliyaat du lépp la ñu daax waaye du lépp la ñu jël. lépp loo xam ne nettali nañ ko dañ koy jël natt ko ci njàngale mi yonent bi alayhi salaatu wasalaam lim ñu nettali ci yonent su fekkee dëppoo naa moom ñu jël bu dëppoowut ak loola ñu bàyyi léegi nag am na loo xam ne mi ngi ci téere yi mi ngi ci tafsiir yi mi ngi ci mi ngi ci nettali yi mën koy jiitu ñun borom xam-xam buy liir mën naa mën naa yàgg liir jël lu ne léeg-léeg temps de parole mën naa bañ a may nit ki mu expliquer mmh. ay sources am li ma mmh. wax nii fan laa ko jëlee fan laa ko jële fan laa ko jële mais mën naa jekki jékki jël benn misaal en tant que intellectuel buy liir boo xamante ne misaalu jàngale la ciy jublu man maa ngi jàpp ne sëñ Moustapha dafa joxe exemple lu jàngale ci léeg-léeg nit koo xam ne yaa ngi corriger nit ci benn erreur bu mu def wala loo jàpp ne li mu def nii waru ko woon a def fekk moom it xam na ci yow loo xamante ne mënoon na laa wax ne la lu tax nga def lii. ak mhm. ak li nga defee nan nga ko defee. léegi nag kuy wax di citer ay exemple exemple ku ci bëgg a wu def ko sujet de débat dafa mel am na leneen luñ bëgg loo xamante ne nii euh, vraiment day day gën a jaxasoo. débat bi daal li ci mënti am mooy ñun ñëpp dëppoo nañ la majorité bi daal danoo jàpp ni Serigne Moustapha dafa war a génn def excuse publique parce que lii mu wax. njumte la te dëppawul ak njàngam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bu ñu demee bee tuumaal ab yonent njaaloo wala di nettali ci yonent loo xamante ni am na ñu bu ñu ko xam nga loolu ça pose débat c'est-à-dire man dama lay indil débat bi xam nga justement li ñu ci mhm. problème bi ñenn ñi am mooy fan war a poser débat bi yan question la ñu war a posé wu nag la ñu war a analyser mbir mi ndax bu ñu sukkandikoo ci say wax am na lu ciy génn lu am solo mooy ñu delluwaat jamono. ñu contextualiser problème de contexte. ok man xam nga am person personne bokkuma ci ñuy wax ne sëñ Moustapha dafa war a génn. Euh, dellu ginnaaw. Mhm. wala dafa war a génn wax ne li ma waxoon nangam noonu man jàpp ma loolu man li ma jàpp mooy ñi nga xam ne wax bi mhm. euh, euh, kii na ci ñoom. maanaam comprendre luñ ko nekk na ñoom choc. waaw nekk na ci ñoom choc ñu waa ñi nga xam nekk na ci ñoom choc boo duggee YouTube ñu xam-xam yaa ngi génn. ku ci nekk di wax di d'accord naa di ñaawlu. mais xam nga xam nga ñu bari ci ñoom. Mhm. dañuy wax ne am na téere yu ko waxoon. mais nañ ñu wax téere yooyu mooy yan bu dee am na téere yu ko waxoon nañ ñu ko wax kon wax kon problème bi nekkul sëñ Moustapha léegi am na téere yu ko waxoon sëñ Moustapha da koo dugal ci biir njàngaleem doon joxe exemple man ma ne am na téere yu ko waxoon waaye wérut naa wax ne téere yooyu ñoo ko waxoon wérut léeg-léeg lii moo wér sëñ Moustapha ñi mu doon waxal njabootam lañ ak ay invité muy joxe exemple ci benn mbir cité benn benn benn yëf boo xam ne jàpp naa ne njaboot suñu faa moom comprendre nañ ko mhm. léegi nag àdduna moo ubbeeku ba kenn waxatut ci biirum néeg da ngay mel ne da ngay wax ak àdduna bi yëpp léegi foofu moom problème vraiment boo xamante ni war naa mën a lii suñu faa waru woon a mën a doon débat public masala mi tollut foofu gis naa ñu baree baree bare ñu ci wax ñoo xam ne maanaam dañuy dañuy dégg téll ne damm na c'est-à-dire da ngay dégg rek ñu ne sëñ Moustapha li mu wax ko baat bi nga wax léegi sëñ Moustapha li wax tuumaal lu toll ne ab yonent njaaloo mais est-ce que dafa tuumaal ab yonent njaaloo yaa tudd yow yaa mais li ma posé question yi ma posé est-ce que booba ku def loolu njaaloo wala boobu booba tudd njaaloo li may wax ne ay question la mhm. est-ce que la tudd wala wala booba tudd njaaloo est-ce que euh, sëñ Moustapha li mu wax dafa seet dafa wax ne aqiqatan moom loolu daf koo gëm loolu moo nekk wala daf koo liir ci ay téere di joxe exemple joxe ko ci wala déet lii ay laaj la yoo xamante ne ku jàkkaarloo wut ak moom ba man ko koo laaj da koy dogal ngant alxuraan daf ñoo wax ne mhm. ku dégg ay wax da ngay tànn la ci gën a rafet allazina yastami'una alxawla fa yattabi'una ahsana boo déggee ay wax nga tànn la ci gën a rafet mhm. euh, euh, loolu mooy wàllum sama wàll ak sëñ ñi nga xam ne ñoom laa bokkal daara ji euh, te ñu te ñu nekk ci doon seeni donga ñenn ñi taxaw taxawaayu wax wax joo xamante ne waxu aar yonent yi la wax wax fi lislaam teg yonent yi la ñoom itam seen euh, seen wax bari na ci wax yoo xam ne wax yu am solo la li feeg waxuñu ci jëmmi nit rek di wax ci xam-xam man d'accord naan li ñuy wax am na solo parce que ñiy wax ñun ñëpp yàlla yónniwu ci kenn ay texte lañu liir di ko wax kenn ku nekk mën na cee juum kenn ku nekk mën na cee am déggin wu wuteeg moroomam nañ ko teg ci taabal ji ñu toog waxtaane ko boroom xam-xam yi toog ñu gëstu jiwaat xool buñ demoon ba xool ba tënk dara ba indi ko du ñu yokk dara